ngir yëkkatiwaat niveau bi ci enseignement collège privé yi ñi nga xam ne ñoo féete ci conseil des acteurs et partenaires enseignement privé amaloon nañ atelier ngir renforcer li nga xam ne moo di capacité professeur yi nekk ci privé bi. parce que lépp finalité bi yëpp si xale yi la jëm donc nag ñun loolu enseigne mënuñ dem directement si xale yi wax lañ ko mais dañ koy di wax enseignement enseignants yi maanaam jàngalekat yi nan la ñuy xayma ak nan la ñuy buñ xaymaa ba pare bu fekkee ne def nañ benn yoon mais jàllul. lañ koy oyofalaatee gën ko expliquer waat si bopp xale bi pour que euh, lu dugg toon si bopp xale bi finalement mujj dugg si bopp xale bi. muy initiative boo xam ne ñu ngi ci ànd ak inspection d'académie bu Dakar. dañoo constaté d'une manière générale que enseignement privé bi euh, enseignants yi dañ leen dañoo manqué tàtt tàggat il faut ñu tàggat leen def renforcement de capacité si ñoom pour ñu mën a booster académie bi parce que am nañu ay ay enseignants yu farlu mais malheureusement. Euh, ñoom nu ñuy nu ñuy defaree leçon yi parfois day am problème nu ñuy nattee aussi day am problème donc ñun dañoo yaakaar ni buñ leen boosté bu leen jàppalee si si si si seen buñ leen defalee renforcement de capacité fu ñu bëgg egg dinañ fa egg. renforcer capacité professeurs yi ci li nga xam ne moom la ñuy amale évaluation yi mooy thème bi nga xam ne moom la ñu tànn. li nga xam ne nag moom lañ gën a soxla. mooy naka la ñuy nattee élèves yi naka lañ leen di jàppale ba suñ leen nattee ñu xam yan jafe-jafe lañ am ëllëg eh, dina leen amal njëriñ ci yëkkati taux réussite BFM bi ak baccalauréat suñu mission nag mooy mission pédagogique ak administrat ak administrat mission administrative ak pédagogique. ay professeurs yu bëri nag yu nekk ci collège privé yi bokk nañ ci boobule atelier nga xam ne dinañ ko amal ci ñaari fan.